ñu sant yàlla julli si suñu sant suñu ñaari waajur sant borom dëkk bi nga xamante ni mooy Alaaye Waat dëkk bu tedd bii di Daaru Salaam ñor uh-huh. tey ñëw si siyaara bi uh-huh. nekk siyaara boo xamante ni waaw nekk na loo xamante ne ay at at ñun ñu ngi ne ñu koy def uh-huh. nga xamante ne képp ku ñëw si dëkk bi tey ah am nga yaqin ne Alaaye Omar Ndao moom ku ne xam na ne liggéey na ndax liggéey moo waral lii yëpp tey ku nekk ñu ngi jógee fu ne di ñëw waaye ñi yëpp ñu ngi ñëw rawatina waa Sénégal yëpp France àdduna la ñuy wax ndax nit ñaa ngi jógee fu nekk ñëw tey si dëkk bi seen liggéey di ko siyaare si euh, di toroxlu si ronam euh, mu yooyu mu si laaj ma ndaw nga xam ne fii liggéey diine liggéey na liggéey bu xam euh, solo ñun daayira Ansaarul Laay nag ñu ànd ak suñu sëriñ Cheikh Mamadou Bassir ibnu Tahir Ndaw mhm. di ko ñu ñaan yàlla yàggal ko fi ci ko ak mboolem njabootu Alaaji Mar Ndaw rek mhm. eh, ñu ngi koy ñaan yàlla fanu gudd mhm. ak wér gu yaram mm, di xam ne Daaru Salaam gii su ñëw muy góor di jigéen di mag di ndaw nga ñëwee fii yàlla ak rasulullah da nga fi fekk yàlla ak rasulullah ndax ki tëdd fii yàlla la fi nekkaloon ak rasulullah nga xam ne doon wax ne moom fukki xat ak nangam soo a euh, na fi wax ne man man xaman ndaw sama jëmm suuf xaatum si ñaar kooku euh, ñi nga xam ne ay kàngam lañ tey si réew mi bëri na ñoo xam ne moo leen xamal yàlla xamal leen rasulullah yi kon ñëw fii euh, ci barabam bi di ko taw toolu ci euh, barkeem mhm. loolu xam na solo ndaxte euh, Sidi Laaji ma ndaw mooy min moo mooy boo xam ne mhm. euh, koo xam ne tawasul nga si barkeem mhm. wala siyaare nga wala siyaare nga njabootam mu ngi mel ni siyaare nga rasulullah mu ngi mel ni siyaare nga Seexna Amadu Tijaan Si radiyallaahu anhu nga xam ne mu daan wax ne su ma traite bi moom lañ mooñaalee alaaji ma mu mel ni siyaare nga yonent bi ñëw siyaare njabootu alaaji ma ndaw muy mel ni siyaare nga yonent bi tey nag alaaji ma ndaw euh, siyaare dugub la xam mm-hmm. boo ñëwee si tey si Daaru mm-hmm. boo ñëwee fii Daaru Salaam da nga bëgg da nga xam ne yàlla mm-hmm. nga fi rasulullah ñëw fekk sa bi da nga xam ne yàlla nga fi rasulullah fi dara ñorul leen alquran moo leen ñor hadis wax yàlla wax rasulullah moo ñor alaaji Mar Ndaw mën naa ne si alaaji Mar Ndaw alaaji Muntaxa Ndaw Mbacké Ndaw fi dëkk bi kon tey képp ku ñëw si dëkk bi war la ko yegg nga tax sa siyaare dëgg la ñaan ko yàlla defoon naa daayira boo xam ne moom bind ci loxol boppam jox ma man Ibrahima Dramé boobu maa ngi biir Kama Kombo ba ma ñëwee fii munuma daayira man suma loxol bopp laa ko bind mboolem daayira bu nekk bu ma bu ma xam bii laa ci defal suma loxol bopp Mouhamadou Mountakha moom moo ko ci ak 504 ñëw fii taalibe yi di ko siyaare mu nekk koo xam ne ku baax la ku xam njëriñ ku nekk jullit bëgg njaboot bëgg ay taalibeem yaatal mbiram Cheikh Seydi Aji Omar Ndaw fu nekk yóbbu na ko fa lu baax lu ne yokk na ko lépp lu fi Aji Omar Ndaw boxoon yokk na ko ñu nag ñun ay taalibeem la ñu Dramé lañ dëkk Dramé ñilin nekk taalibe Cheikh Seydi Aji Muntaxa Ndaw gannaaw bu ko yàlla wàccee ñu jokk ci Cheikh Mouhamadul Basir ñu ngi yokk fii suñu doom yëpp kii ñu ngi ko tuddee Muntaxa kii ñu ngi ko tuddee Mouhamadou Bachir kii ñu ngi ko tuddee El Hadj Mansour Ndaw seen mag ki ñu ngi ko tuddee Cheikh Sadji Omar Ndaw kii ñu tuddee ko Mouhamadou Sadikh doomam ñun lépp lu xam boroom Daaru Salaam la suñu jigéen ak suñuy xalal ak suñu lépp Daaru Salaam. fii mooy barabu Mawlaay Cheikh Seydi Hadji Omar Ndaw borom Daaru Salaam mu nekk xutbul xaws nekk góor yàlla gu màgg. goo xam ne ku ñëpp ràññee la ci wàllu diina nekk it nit koo xam ne waliyu kaamil la ku ne xam na ne góor yàlla la xutbu la xawsu la mamalaa ay wandaw ñu ñëw fi ne di ziara ziara bi nag li sabab mooy waa ñilin ñoo fi daan ñëw di fi dajee di ko ziare ci nekkul ne moom moo tànn bis ne ñëw leen dama ziare waaye wa ay taalibeem ñoo tànn bis ne dañuy at bu nekk war nañ di dem di siyaare suñu sëriñ tey loolu moo sabab siyaare bi mu dox diggante taalibe ak sëriñ ñun nag ay taalibe lañ ci kër ah, da wax ne barab bii barab bu xam yaakaar a ngi ne xam naa ne ñun de bañ fi jokkook tey gisuñ ci benn rëcc yokkute rek lañ ci gis yàlla def na xin nag ñun dey dugalul ñu si bay dugalul ñu si ñun ñun ñoo xool ba yàlla def suñ kóolute si moom lii moo ñu fi indi bañ fi duggee tey nag wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant nag seen taxawaay yéen xam ne daal barab bi daal doon na barab boo xam ne nii daal yokkute rek moo fi nekk yokkute rek moo fi nekk ñu ngi naan ñu fi tewee ren nii yéen yal nañ fi tewee déwén gën nga rafete déwén te lépp luñ fi ñaanit yal nañu ko yàlla nangul ah, bayalay xamanda moom géej la li si nekk yëpp duul la ñun mën a wax boo bàyyi ko si fii si man keneen koo mën demit danaka wax ji benn la dal da jenn jël loola mu jëndoon yóbbu ko jox ko soxnam bam mu soxna sa tek ko da ko togg togg togg togg togg barab ba ñorul léegi bi reer joté mu ne ko soxna si yakal bo ñu seet reer bi mu ne ko señ bi mu ne am ah, ne ko man de la ma joxon bo ba tay ma ngoy togg way man ta fexé ba ñor ci la dik fi ci señ bi xamal ko ko mané ne ko waw yow bang ko jëndé fo jaar mané ko man dé dama ñëw fekk waxtu timis yaa ngi ñëw jiite fii yéen teg naa ko fi nak duggu nga jité ñu mané ko man nak lépp lo xamné faré na ma gannaaw du sobe yalla loolu loolu loolu safar du ko lakk alhamdulilah waaw alhamdulilah waaw waaw kay waw kay waw kay ngi sant rek de gërëm rek da kontaan bu baax a baax tewee ren tewee déwén yu bëree bëri bëri ndaw ngeen yan na yàlla taxaw la ci saayir ak baatina rajo bi moom mooy ban rajo waaw kay waaw kay waaw kay waaw yan na yàlla dëgërale njaboot ak sëñ bi yal na yàlla wattu la taalibe yi it yal na yàlla wattu la taxate taxaw la saayir ak baatina barke nabil Mustafa sallallahu taala alhamdulilah